ci wërngalu xarab xëy si jamonoy mas rey ak boom ci la yenn ñi di ndamoon tusi ñu ciy mànjaay ak ak aaji ji bi di réew ñu leen di sarax ñuy warax muy neex ci seen prox xol nag du ma mbënd ko bos waaye bu feesee foo mu dóor donte dañuy nargan baati ci biir lëndëm du ko tere jib na ca ñeer bu naan mël ci kàddu buy dund président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ci sa barke turu màgg bi bu ca leeru yërmande di mel fere yi soxla nañ seen ndimbal ndax waxtu dëkk bi nit ñu sonn nañ kenn mënu may delloo fii laa yor jàmbaaru njaaxum yi goobaru ñaari wet yi bu nit ñi sàkku leer ñuy sóonu ci biir lëndëm di diisoo ay pexe yu ñu luubale alalu réew mi jëf ci ndaw ñi ak jeexital ñuy njëkkal mbedd mi jalgati kilifteef yi ngañ ñi askan wi sampay xel jéggi saa njaay mbëggeel ndaw yi top ci mambu la lab ci bëliga ndax ñak yaaka l'an 2000 jot ñu doon wayal nan l'an 2000 l'an 2000 l'an 2000 adduna tàngal ñi ëppoon yaakaar ci yooyu jamono ñuy yaakaar di yaakaar di yaakaar bis bu seen yaakaar di tas ñu koy xeex di ko xeex ba 2024 yaakaar gi nag doori ñëw ñoo ngeen yaakaar lool ci président Diomaye Diakhar Faye man mii xanaa xamoo la ni dama jëloon gaal gi war a dem mbëkk mu waaw waala laa jaar man ab waala waala la maa ngi juddoo kër Momar Sarr feto ak mirin ñoo ma meññ ma jël gaal gi traversé fleuve waaye bu ma déggee ne président Diomaye Diakhar Faye jël na réew mi dama wuññi ko ndax xam naa ni am naa yaakaar ci moom lool ndax ndaw la téeméeri fan la fi def réew mi commencé suppi ko ñëpp xam nañ gis nga nag maanaam lu ne fan kenn du ko jeex lañ waxoon téeméeri fan lañ ci def téeméeri fan mbir mi commencé suppi ñu transport wanyu dund gi keroog damaa xool gis ñu ne courant bi wàññi nañu ndox mi ñu wàññi nit ñu commencé am yaakaar xol yi di feex ñi seen Sénégal di seqi jéego yi moom boppam loolu xel mu dal suñu yaay Aïda Mbodj yaay Mimi yóbbante ci njiit mi ne leen ko yaakaar gi am ci moom bu mu yàq bi mukk ndaw yi ñoo xeex xare génn jàkkaarloog ñi fi nekk ni leen jàmm ay jàmbaar ngeen waaye mënoo leen lay jàmbaar ngeen jéem ngeen ba sonn jéem tële du gàcce fi ngeen yem yem leen foofu léegi nag at mi daa toll fa jamono moo toll foo xam ne ndaw yi ñoo ko war a yor pour defar ko jox nañ ko ndaw ñi léegi nag fi mu toll nag moom ku yéeg ci garab ku la sànni xeer nga gëstu fayu yëgal doo yëg moom oto bi moom buy klaxonné mu kii ci kanam lay klaxonné waaye du klaxonné kii ci ginnaaw président jiitu na ba pare bu mu faale te ñoom Ibou Ndafaat ñooñu xam nga ñu may am. maa la loolu la waaw maa mbir mi tollootul foofu nañ avancé jëm ci kanam incha allah rabbi la ca kanam yàlla na Sénégal am beneen xar kanam Sénégal jëm ci ko tax xam na naa ci yaakaar ndax gis naa ay jeunes yu dynamique.

mathématiques organisations. asile dañ koy def ba mu nekk yoon. fantastique fantastique bravo et puis Ndiankou est là.